ànd kook njabootu sëñ Touba gépp ci njiitul sëriñ Bassirou moom sëriñ Abdou Khadir ànd kook comité d'organisation Grand Magal bépp ñu amaat mbégte ak cant gu sax dakk fas yéene waajal ndigalul sëriñ bi ci anam yiñ ko daan defee ci turu bokk taalib yi ñu àndal comité bépp ñu ngi fas yéene seere àdduna suñu cant ak suñuy ngërëm waaye ak suñu dogu suñu pas-pas ci sëriñ bi fas yéene ànd ak sëriñ Bas ci ndigal yépp rawatina màggal gi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal te muy mbirum lislaam bépp niñ ko baaxoo di defee rek xam naa kàddu yi du mën a gudd waaye mbokk yi ñu àndal liggéey bi rek lañuy seere àdduna ne nañu laxasaayoon ba ñu taxawalee kuréel gi ak léegi tey jii lañ ci gën a laxasaayu te fa suñu ko yéene teggi benn yoon fas yéene ànd ak sëriñ bi nekk ci ginnaawam woye liggéey bi niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko ko di digale incha allah kon sëriñ bi ñu jox la kàddu yi rek. dañ ko ci tey sàkku ci ñoom. ñu gën a góorlu ngir sëriñ Touba amul tànki gannaaw tànki kanam rekk la am te it yaakaar nañ ko ci ñoom kon képp koo xam ni mbokk nga wëllëre nga te bokkoon ci comité bi ñu lay ñaan nga fabuwaat te jóg taxaw te fas yéene li yi ñu jublu ñu am ca ndam loo xam ni mësuñu koo am ñuy woo ñëpp itam bàyyiwuñ kenn sëriñ bi di leen sant ca la jiitu tey te tey tey séentu itam ngeen def lopp la nga xam ne moo jiitu woon ndax bis bii bis la boo xam ne ñun amuñu bis boo xam ne mën nañoo wax ni féete na ko kaw ndax sëriñ Tuubaa moo def lépp euh, damay faral di wax ni da koo da koo da ko dafa def li mu war a def lépp dikk fii yet jógul jaasu jógul paaka jógul leneen jógul ba mu am li mu war a am lépp suñ boroom nag foo ko féete muy fi nga ko war a féete ba woon ko gannaaw ba nga am ngërëmam ku naan ci ndox mi dana la bëgg ku asamaan si tiim mu bëgg la ku dox ca suuf si bëgg la jën yi ci géej gi sax ku ca lekk dana la bëgg ndax mbëggeelu su ngërëmul suñu borom moo toll noonu te sëñ Touba ngërëmam ci suñu borom kenn amu ci looy warante kon ñoo ngi woo bokk yépp ñu góor góorgóorlu ci liggéey bii te xam ne kat kenn ci nun munta fay sañ tubaa kenn ci nun munta xëy ci sañ tubaa mbaa mu gont ci ba delloo ko njukkal kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te di woo ci liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin allahumma ya man ajabani wa radita anni wa nafaqani wa nafatani mubarakta li ijabatan wa ridan wa nafan wa barakatan lam yusbax ila misliha wala yusbaxu ila misliha ta ilaya fi yowmi xatti haasal xatta alquran wa lisaan alarabi manaafic dunia wal axirati fihima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 mu taale ci ak xasida ci laa mooy gi ma ubbee noonu kon ci ndigalul Cheikh mu taxa mi nga xam ne moo fi sëriñ tubaa tey ci kaw suuf ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu jot li kàddu yi cant ak i ngërëm jëme ko ci al umma islamiya bépp waaye jëme ko ci mboolem taalibe Serigne Touba yi nga xam ne ndigal li ñoo ko tax a jóg waaye jëm ci képp koo xam ne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 waxaatit ne lii aw si li lesi uridu wan faxi bi yàlla war a yaa mu wax nii am faxi bari na fu mu ko bind kon bi mu ñibbisee nag yéene lépp la mu fa jële moo tax mu yëkkati woote yi ne képp koo xam ne bëggam sa bëgg ak ko ci sant yàlla sant la yàlla ñaanu Sëriñ Tuubaa nag lépp lu mu digle rek suñ borom a koy def ci xole yi ñu doon ko ndax ñëpp maase nañ ci xam ne màggal Tuubaa nekkatul yëfi yoonu wër waaye ñi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ñëpp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 لدى دار السلام وعند توبة بجسم وخلام نويت شكره بفرد وسنن عندهما وعند دارة المنن kon lëkkaloo gi màggal gi xëttaloo tàmbalee daaru salaam ba si daaru minan ak ak ak si daaru xulaas lépp sëriñ Tuubaa bi noonu ko kon nag noonu la ko sëriñ bi wéyale xam ne màggal gi ak kenn ku ci ne na nga koy dundal di sant di ko sant la yàlla ci bis mi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 kenn ku ci ne na sa kilifa yi àndi woon kenn ku ne sëriñ Tuubaa ngay xool ci moom kon sëñ bi nee seenu cant wax na ko bu yàggul ci côté bi ma daw seenu cant lott na ci wax leen ko ndax ñëpp xam nañ cër bi ko jox nee na kon ñu ngi leen sant leen gërëm leen ñaanal itam bu baax naka noonu itam mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo bokk sëriñ Tuubaa di ay bokk te ñëpp jaay seen bokk jëndee ko taalibe ni ko doomi sëriñ Tuubaa defe bokki Serigne Touba yëpp noonu lañ ko defee ñëpp jaay seen bokk jënd ko taalibe sëriñ bi naan bokk yëpp mi ngi leen di sant leen gërëm seen taxawaayu rafet yi nga xam ne am nañ ko ci moom am ko ci biir yoon kenn ku ci ne xam ne ngay def defaloo kenn sa bopp nga koy defal bi mi ngi leen sant di leen gërëm gërëm bu baax itam nag ñi nga xam ne seen maam ya ñoo laxasaay woon topp Serigne Touba te ba ñuy topp Serigne bi.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 ak fañ àggoon ci seen digg seen seen borom Serigne Touba daa leen wax ci suñu mët la gay ne mët mi de képp ku mu topp ci sa ginnaaw moo suñu dara sa njaay ñoom ñëpp daal wax ci ñoom képp kuñ topp sa ginnaaw war ngaa góorgóorlu baax ndax booy yeexee ñu weesu la jàll te am na kenn xamu leen am na ku ñuy wax Serigne Banda saw da ngeen ko dégg ci waa kër Serigne Touba ci ñoom laa ko la dégg Serigne Doxaade si Serigne Saliou ak Serigne Sow ñu ko fonk ko doon tudd ku dëddu ku dëddu woon adduna la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 te fu sa fu seen kàttan yam ngeen toog xaar fa si jaxalulaahu baax raxu si yusoon loola day mel ni yoon yi ci lay dox ba nëgg ni ba fu mu àggatee fa la fa la xam ngeen ne ak Cheikh Mouhamadou Moustapha bi muy woote jumaay Serigne Touba yi booba jafe woon na lool ndax ci booba guerre 14 18 da jeex tuuti Serigne bi ñibbisi Touba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 ci jamono yu metti la woon xam ngeen ne xeer yi ko liggéey di xeer ndokk yi nit ñi ci seen bopp yi lañ ko daa teg booba ay dàll sa amuñ ko daanaka ci condition yooyu lañ liggéey jumaay Tuubaa kon jumaa ji tey bu ñu doon natt xiimaam kenn mënta xam fu mu àggee ndax loolu boo doon xool tey liggéey yi ni toll ci àdduna bëreetut ci jamono yu jafe noonu lañ ko def nga xam ne ci tool yi àllarba ak ak ak mbay mi rek booba jamono ji mel bi ndax nit ñi dara ci foofu lañ tàmbalee liggéey jumaa ji Touba dara néew fi amagul titre foncier amul dara ab àll ñu xam ne Sëñ lépp lu bëgg rek suñ borom noppi la ca ñu jug nañ ngir gerte moo ñaanu sëriñ bi moo jafe woon lool Cheikh Mahoudou Moustapha ci jamono yu jafe noonu la ñëwee te xam ngeen ne jumaa ji boo suuf si amagul titre foncier bokk na ci yiñ ko gàlloon bokk na ci raay bi ndax tubaab bi bi Cheikh Mamadou Moustapha di autorisation bi ndax xam ngeen ne sëriñ bee ngi njëkk bind autorisation bi ndax moom suñ toon a bind ci loxoom di ñaan dara tubaab bi ndax lu ko jaayante woon borom sëriñ Mbàkke Buso moo bind lettre ba mu noppee sëriñ na mustaktibu haasihil huruf kaatibu haasihil huruf waaye Cheikh Mamadou Moustapha bi ñaanee autorisation bi tubaab bi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 jële liggéey bi ci magam ju tedd ja woyal ko ba liggéey bi àgg ba mu inigré ko natt dëkk bi defar ko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 waaye assainissement bi ñuy wax tey nga xam ne moo jaaxal dëkk yi Serigne Saliou ci alali boppam moo njëkki génne lu ma juróom benn téeméer bi def ko ci tàmbali ko ci yooyu yeneen yu bare bare ba sumb fi ay sumb yu mu bàyyi ko mu bàyyi fi lu xam ne lépp du ko def addiyee jëmale ko ci ku fi nekkal Serigne Touba moom ko kon loolu lépp itam ñu wane seen jàmbaar ginnaaw mi tam ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw di njëkk a ci seetu Serigne Touba bi ko njëkk a wóotu ci ay sëtam moom itam fa way juróom ya tegoon tànkam rek la ko teg ñaari at ak genn wàll yi mu fi am ñëpp gis nañ taxawaayam ci biir yoon bi ak ubbiku gi mel ne way juróom ba li ñuy gàtt gàtt jëf na fi loo xam kenn du ko fàtte.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 bu xaaj bu njëkk bi ubbee nag ba mu tàmbali sëriñ bi nag yitteew yëpp da ko jooyal ci ndoxum Tuubaa ndax wa ni salli minal fujjaari wa minal ala ahli minal jaari nag xam na ne sëriñ Tuubaa ñaanoon ko sëriñ lépp lu ñaan lu mu tëj kon wóoru kon luy sotti la moom nag naka jekk daa wax ne bu mu toogee jotaayu sëriñ Tuubaa bi yitteem di njëkk mooy université bi di jàmm waaye ja ca topp mooy ndox mi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 ndax yoon wi noonu la ko Serigne Touba sose mooy sukkandiku sa bopp te xam ne dëkku Serigne Touba bii fu mu àggee taalibe Serigne Touba ñëw fa àggee ndax tey boo doon xool dëkk bi fi nekk ci ay bâtiment dañuy tuddee bâtiment yoo xam ne bâtiment nguur la néew na lool daanaka bâtiment yi officiel fi lépp taalibe Serigne Touba fi lu fi nguur defit tàmbali ci Senghor ba nag ni daa fekk taalibe yi jëf mu fekk si leen loolu nag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 di gërëm itam waa daayira bu Tarqiyyah ñoom itam ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay ci màggal gi ndax ñoom xam nañ ne seen lépp màggal la ndax bu màggal gi jeexee rek balaa ma du weer danañ tàmbalee waajal màggal gi kon ñoom seen màndarga bi gën a fes yi ci des yëpp di ci doon koy màggal seen taxawaay te loolu ñu koy defee ci màggal gi itam diiru at mépp noonu lañ ko àndee sëñ bi ci jiite ak posture taxawaay kon sëñ bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di leen ñaanal sumb yi nga xam ne am nañ ko te ànd ko moom te waxtu ne sëriñ bi da leen seere ne ñoom ay soldat lañ rek soldat rek mooy koo xam ne samiha naa wa ataana lu leen sëriñ bi xas kon sëriñ bi neen mi ngi leen di sant ci seen jiite ak seen posté ak seen taxawaay di sant yi itam waa daayira Muqaddamatul Xidma ñoom ñi nga xam ne ñoo am tawféex yi barabu sëriñ Tuubaa bii di jumaa ji ñoo amoon liggéey ci Serigne Saliou Mbacké ak ñi ko fi wuti ginnaaw bi yëpp di taxawal liggéey bi di ko def ci ne mu gën a rafete muy ñoo xam ne ñëpp xam na ni doon ci Serigne bi waaye dañoo jaay lépp jëndee wu taalibe jël seen ak der teg ci biti di sàkku ngërëmu Serigne Touba ko ko seereel ñuy ay jàmbaar yoo xam ne waxtu ne dama leen di wax ne bala ñoo xamoon seenu jàmbaar de mooy seen liggéey bi ñu xëy.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 muy dox nag ñëw fuyutuwaat ginnaaw bi yëpp ku ci agsi teg ci sa bakkan ngir lefi Sëriñ Tuubaa bëgg ci dëkk bi ñu sàmmonte worma ji comme ñoom waa daayira Safinatoul Amaan ñuy def loola kon nañ xam ne ñoom li ñu def bi Serigne Saliou Mbacké dikkee jox leen Tuubaa ñu woy liggéey bi ginnaaw bi ñëw fi wutuwaat ñëpp woy liggéey ba baa gi ci Cheikh Mouhamadou Mountakha xam ngeen ne seen CSB nit ñi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 la kilifa gu baax ko bi Ibrahima daa wax rek ku xamoon dina ci bu ëttu sëriñ bi kon nag bu ñu amee tawfeex li setal li wër jumaa ji nañ ci gën a yi def te ak posté bi taxawaay di gërëm commune Touba Mosquée ñoom itam nañ xam ne fii ñu nekk ndigalu sëriñ bee def bàyyi kon li leen sëriñ bi di sant ak leen ko soññi waxtu ne mooy nañ xam ne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 kon nee na sant na ko ci jàppale gi mu ko jàppale ci liggéey suñu tubaab bi waaye mu ngi koy sant ci jàppale gi mu ko jàppale ci liggéey dëkk bi ndax wàllum ndox mi forage yi def nañ fi ñeenti forage ren benn bi moo moom la yóbbu ca hôpital Modou Lo Fosséni bi ci des mi ngi daaru xudóos bi ci des mi ngi boborel bi ci des ngàbbu waaye yëpp dañ koy defal ay mu agsi ci biir dëkk bi kon loolu ay taxawaay la yoo xam ne su koo ñàkk seere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 ci positifam ak taxawaayam ak yitteem ji nga xam ne ànd na ko moom ginaaw bu loolu jàllee nag sëriñ bi ñu dugg ci programme màggal gi niñ ko fas defe defee waa comité bi danañ ko gën a leer leeralaat waaye ci tënk rek ndax xam naa du ñàkk loo fàtte ndax doomu aadama dafa mën a fàtte waaye programme bi la ci jëkk mooy li gën a sëriñ bi rek mooy alxuraan ji xam ne bu weeru duggee rek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 ànd naa moom Jolof ànd naa moom gànnaar ba ci bi xam ngeen ne ci histoire sax bii sëriñ bi di teg euh, xeer bu jëkk ci njàkk jàkkee njariñ bi ñëpp taxawee nee na ana Maxtaar Bintu Lo ñu woo ko mu ñëw bi sëñ bii defar ciment bi bi ñu defar ciment bi moom moo ko doon defar di jox sëñ bi muy teg kon moom itam xam ngeen ak cërim ci yoon wi soxna Faati Jaa Mbàkke moom sëriñ bi moom itam bokk na ci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 Sëriñ Tuubaa dafa wax ne waccaru dëban maskana ibtibaa'i li sunnatin la maskana ibtidaa'i wa manfaan li kulli haadin muslim wa madfaan an kulli aadin mujrim waxaatit ne wa xujjatan foofu itam ñu war dañuy wax wa xajjatan waaye day mel li gën mooy wa xujjatan li man bi doon fi irtidaa mooy ki nga xam ne bëgg naa dem Makka te amul kàttan mën faa dem ndax walillahi walillahi ala nas hajjul bayt man istaa li ci teg man istaa joobu mooy mooy man man man bi don fi irtada ndax xujjatu xajjatu sax arab da ko du jëfandikoo lu bari yaakaar naa xujjatu lañ ma tax xujjatan li man bi don fi bu jàggatee day day mën naa nekk xujjatan li man bi don fi irtada aw aw xujjatan ala muxaalifin bu fekkee xujjatan ala muxaalifin ci arab li ñu fi mooy aw lay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 ñëw ci dëkk bi dangaa war a bàyyiwaale say aada ñëw indaale li fekk fi li fi Sëriñ Tuubaa digle loolu nag kon xëy na martal doomu aadama moo ci bi waaye ñun ñëpp nañ gën a bàyyiwaat xel ci war may dëkk bi ndax ñi fi dégg yu bari yoo xam ne neexut kenn te nañ xam ne ku dëkk ci dëkk bi am tawféex dëkk ak Sëriñ Tuubaa la Cheikh Modou Mountakha waxoon war ngaa xam ne waroo mel ne ña dëkk ci biti waroo soloo ña ña ci ña nekk ci biti ni ñu solo.